bi sante borom bi ci yonentam ba sallallahu alayhi ñoo ngi ñaan mu defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu tawfiq nangul ñu mbooleem suñuy jaamu yàlla koy waxee saa yu nekk rek su weer wi dugg ñu fàttaliwaat mbokk yépp ni weeru koor tàmbali na weeru koor ci boppam nag mooy mboolem mooy sang mboolem weer yi am ci at mi yëpp at mi am na fukki weer ak ñaar weeru koor mooy weer wi gën ci weer yi weer wi mooy weer wi nga xam ne ci la yàlla wàccee woon alquranul karim yàlla nee na inna anzalnaahu fi laylatil qadri yàlla wàccee nañ alquran ci guddik laylatul qadr guddik laylatul qadr ci weer wii la nekk guddi googu nag yàlla nee na moo gën junni weer moo gën junni weer nag maanaam junni weer nga jaamu ko yàlla te mus musoo cee mooy yàlla guddik laylatul qadr googu moo ko gën guddi googu nag ci weer wii la nekk weer wii nag su ñëwee ci jaam bi bépp jaam war naa góorlu ba fóotu ci ci mboole mi bàkkaaram waaye it fóotu ci ci mboolem ay sikkam waaye it góorgóorlu ci ba mu génnee doon ko set wecc doon koo xam ne ak jullit bu sell lay doon maanaam ak dund gu bees moom la weer wi di defar yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam nee na képp koo xam ne weeru koor ñëw na nga woor ko taxawee guddi yi di ko naafil la maanaam woor nga weer wi naafil la ko ba mu jeex ci gëm yàlla ak ci sàkku tuyaaba nee na yàlla dina ko jéggal ay bàkkaaram yépp loolu nag ci weer wi rek lañ ko mën a amee yenn saa nag nit ki woor ba noppi yàq lépp comme niñ koy waxee mooy nit ki mën naa dajale ay yiw yu baree baree baree baree bare yàlla nangul ko yiw yi waaye mu dem ba ngoon mu yàq mboolem yiw yooyu yépp caaganiwul ni weeru nag lekk ak naan rekk ko yàq waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yàlla du soxla nit ki bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi bañ a nelawam su fekkee mi ngi woor te bàyyiwul wax ju ñaaw ci ngi ciy déggee ni mooy nit ki woor ba bëccëg déglu wax bi bu baax nit ki woor ba bëccëg mu taxaw ñépp di ko xool mu jël potub ndox naan ba man ni ñu ne ko lu tax mu ni maa tey moo gën nit ki di woor di jëw mbokkum jullitam ndax dégg wax bi nit ki woor ba bëccëg jël potam ndox naan ba màndi ñu ne ko lu tax mu ni maa moo gën mu woor ba noppi di jëw mbokkum jullitam ndax kii woor ba noppi naan kooram yàqu na ki woor ba bëccëg mu lekk kooram yàqu na lu ko yonent bi wax lu ko yàlla wax nee na na fay bés bi ba noppi kafaara kon lu ko fayee ko bu fayee kafaara rek loola wàcc na ko doonte rëy na lool waa kii di jëw nag moom yàlla def ni ko la ngay la ngay woor ak la ngay naafila bëgguma ci dara loolu foo koy fay amul fay amul fay ba noppi ëllëg yowmal qiyaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ndax xam ngeen ñan lañu saisir ñu ni ko ah yàlla ak yonentam rekk ko xam de mu ne ñi ñu saisir de mooy ñii ñëw yowmal qiyaam indi tuyaaba yu bari maanaam jaamu nañu yàlla jaamu yàlla yu bari yàlla nangu ko moo xam woor nañ saraxe nañ def nañ lu baax julli nañ muy tuyaaba yu bari bi nga ñëwee yowmal qiyaam nag yàlla ni laa ah, bari nga tuyaaba de waaye ca àdduna dangaa saaga woon diw diw mii dangaa tooñoon diw ma ne dangaa dóoroon diw ma ne danga koo xas léegi nag ñii nga saaga woon ñii nga dóoroon ñi nga xas ñi nga tooñ faw nga fay leen tey su boobaa nag yonent bi ne la lan la ñuy fayee mooy dañuy jël say tuyaaba yow di fay ña nga daan tooñ ca àdduna bu ñu fay nag ba say tuyaaba jeex tàkk yàlla ni malaaka yi ne ko yàlla kii day li mu waroon a fayee lépp jeex na tuyaaba yi jeex na te ñi mu tooñoon des na yàlla ni xool leen ñam daan tooñ ndax am nañuy bàkkaar wala déet ñu ne am nañ kay mu ne jël leen seeni bàkkaar ñoom jox ko ñu jël ay bakkar yi ñooñu mu daan tooñ muran mu daan xas ñooñu mu daan jëw jox ko bu ñu demee ba mu jeex tàkk ni kon ko wul benn tuyaaba jël leen ko sànni ko sawara mu jeex kon nit ki weer wii ñu toll ci la war a fóotoo ba faw mooy danaa woor danaa fexe ba sama koor gi duma ko jox kenn du tax duma ko jox kenn mooy ma bañ a jëw kenn bañ a kenn bañ a kenn loolu nag bépp jullit bu ci nekk nag fanweeri fan xanaa formation yi war naa mat sëkk loolu taxoon yàlla ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yéen ñii gëm yàlla day man maa farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ca ñi leen fi jiitu woon lu tax ngir ngeen ragal yàlla nit ki nag su fekkee lépp luy mooy yàlla bàyyi na ko lépp luy tooñ bàyyi na ko lépp luy wax ju ñaaw bàyyi na ko moom ma ngay julli ca jàkka ja ma ngay la ma ngay nab nabi ca alxuraan bu dee mën na ca dara ma ngay jéem a saraxe di dox mbokk di def lu baax fan weeri fan loolu nag mooy formation bu mat sëkk ak jullit bu ci génnee war naa am dund gu bees tàq fas yéene nag dëkk man borom bi tabaaraka wa taala moo tax dañuy wax ni bu fekkee koor gi jeex na tàkk nga càmbar sa bopp gis ne na nga meloon démb nga mel ba tey ndax sa koor gi nangu ne la ñuy wax am déedéet waaye boo koor gi jeexee rek war nga gis ni man beneen doomu aadama laa bu ma bokkul woon bu may dugg ci koor ga fu ñu ma daan fekk dama daan jëw tey banaa ko kon de santal yàlla sa koor gi nangu na def na ci yow dara man daawuma fa respecté julli tey respecté naa ko daawuma dox mbokk tey maa ngi koy dox daawuma saraxe daawuma dimbalee tey maa ngi koy def loolu boo ci paree rek loolu war naa war naa sax ci yow ba ca topp kii di koor yàlla dina ko may benn xam-xam xam-xam bi mooy ah ndeke de am na ñu ñàll ñu yàlla ñàkk loo lool am na ñoo xam ne suñu añee duñu reer xalaatuñ ko am na ñoo xam ne mën nañu toog ay fan duñu am luñ taal ndax yàlla mayu leen wërsëg gi am ñoo xam ne léegi dañuy dañuy xiif lool dañuy génn pour uti ndimbal pour mën a dund yow miy woor nag. ay waxtu yu bari lekkoo naanoo nga xool ni mu mettee ni mu safe nga ne nekk man am nañu yàlla bind ñoo xam ne lii dañ koy daj même bu dul koor dañ koy daj su boobaa mën naa def ci yow xolu yërmande ba bu koor gi jeexee rek nga tàmbali di nemmeeku ñooñu di leen dimbali kon day def ci yow ak ragal yàlla ci gàttal weer wi tàmbali na fukki weer ak ñaar moom am ci at mi fukk ak benn yépp nag yaa moom sa bopp da ngay lekk da ngay naan weer wii nag borom bi tabaaraka wa nee na mboolem lu ci jambi def man makoy fayal sama bop fa innahu li wa ana ajzi bihi mako momal sama bop makoy fayal sama bop koor ni mu mettee suba ba ngol do lek do nan nit ki bu ko defee war nako wagar bu baax gis nga bo sa alal ba wer de ñu fay la nga ag ci bir bu dencukaay ba nga denc ko fa nang koy wagaré bu de ay xar nga yor wala ay ak jur nga yor nang koy samé mu jaral wut fetal di garder guddi ngir lan alalu aduna la ngir alalu aduna la nonu la nit ki wara wagare ak jaamu yalla su ko defee ba noppi ndax julli ci jakka ja yalla nangu ko rek tekkul ne nangu na ba faw ëllëg mën na yàqu nit ki nag su liggéeyee ci jaamu yalla ba noppi nako ko wagar bu baax ni ma wagare ak juram xolal dañ la wax ni tay benn cheikh moo ko doon wax nee su fekkee dañu la dafa am agresseur bu ñëw dàqe la nee na na rawale sa bakkan maanaam nanga nga daw boo dawee ba mu nar laa jot nga sànni sa alal maanaam yoroon nga walis wala yoroon nga xaalis nar na laa jot te ba la jotee rey la jël sa bakkan nee na sànni ko alal ja la nga yoroon lépp jox ko ko su demee nag ba nar laa jot ba nar laa jot nag nga jàmmaarloog moom jox ko sa bakkan loolu lañ ci mën a dégg mooy doo dégg mukk bu ñu la toppee joxeel sa diine bu ñu la toppee joxeel sa diine doo ko dégg mukk léegi nag mbir day xew nga sa diine ba noppi waggar sa alal lan la ñuy gën a faral di wax yow lii ni ngay def nii diine jëru ko bu mu la ko bu la ko jaral diina laaju la lii fekk diina laaj na la bu joxe bakkan jotee sax joxe la mais dañaa la diina jëru ko yaa ngi sonal sa bopp yàlla tegul kenn lu mënul dëgg la waaye lépp lu yàlla wax jaam def ko mën na ko yàlla yaafasul yàlla du ko ñàkk xam-xam bu dee jaam bi defal gi nit ñëw ni la lii la yàlla sant mënoo ko yàlla tegul kenn lu mënut dëgg la waaye lu mu nit jaam bi def ko man na ndax yàlla gën a xam ñépp kon nag weeru koor a ngoog metti na tàng na lool bu fekkee am nañu woor tey xam nañ tàngoor yu ni mel loolu nag nga daj ko bëccëgug lëmm ba guddi jot nga jox ko sa beneen bokkum jullit bu deful dara loolu ak sàggante la li koy waral nag mooy nga toogub jotaay nekk ci sa deru mbokkum jullit te dafa bari nag lool loolu nag tekkiwul yàq sa deru nekk tekkiwul ni yani yak yàq deram waaye yak ngi yàq sa bopp yow kañ la mooy bu yowmal qiyaamate ba ñëpp taxaw borom bi war a atta jaam yi agsi ci yow ñu la yow amoo dara nga ne ko déet man kat daw ma rate jàkk ja daw ma rate koor dama daan dimbale dama daan saraxe yàlla ni mboolem danga daan def lépp yaa ngi doon jëw jàmbur yi jox naa ko ñooñu loolu du pertement moo tax benn kilifa bu mag bu baax nee na su ba nar a jëw sama ndey ak sama bàyyi moom ko gën ñu ko ah, lu mu ni tuyaaba yi may joxe keneen ma jox ko sama ndey ak sama bàyyi ma ko gënal ah loolu nañ ko bàyyi xel bu baax loolu mooy yàq koor dëggantaan nag kon loolu lañ doon tàmbalee di ko bàyyiloo xel bokk jullit yi wala dañ ko wax ci koor gi rek waaye même bu dul koor même bu dul koor na ko jullit bi moytu bu baax a baax a baax ndax ku tardé yomal xiyam looloo a tardé. maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mo may ñu kattal bañu mëna wër bañu mëna wor wër wi diko ñaan mu nangul ñu mbolem suñu jaamu yalla yépp diggal ñu njuumte yeeg bakkar yi mbolem jullit buy wor rek yalla ko borom bi wa taala nangul mbolem jullit buy wor yalla ko borom bi wa taala nangul maa ngi baalu ak àq bal na ñépp na nu yàlla borom bi tabaraka wa taala boole jéggal sàmm ñu saxal ñu ci siratal mustaqim والسلام عليكم